seetlu ni am nañ leneen lu ci rax loo xamante ni xëy na ci image yi buñ ci buñ ko défilee di ngeen ci gis ay yenn yenn firnde euh, ah, vidéo c'est alors image bi ngeen gis benn vidéo la buy wane nit boo xamante ni arme bii mu yore xëy na du ñàkk am na ñu ko gis sax mais lii arme de guerre la mu wóor ni kii li ko tax a jóg moom du manifester leer na parce que kii armu bii mu yor ñii nga xamante ni sax dañuy nekk ci maintien de l'ordre yor arme bu ni ñu nekk ci zone de guerre ko yore donc lii benn la ci firnde yi wane ni naam am na ñoo xamante ni dañuy manifester parce que dafa am lu leen tax a jóg mais am na ci rax ñoo xamante ni euh, leneen moo leen tax a jóg li olof di wax am na ñuy gàmmu mais am na ñoo xamante ni dañuy raas dem donc loolu mooy premier image bi beneen image

benen vidéo benen bi également day wane ko xamanteni momit arme de guerre la yoré té arme bi mu yor ki ni muy tiiree wuute na ak ki nga xamanteni ni moo doon tiire sànq ndax ki professionnel la li muy daf ko xam maîtriser na arme bi xam na li def té ki ku ko xool xam ni manifester taxu ko jóg ñu gis ko ni mu yor arme jakarlo ak force de défense et de sécurité yi li benen vidéo la momit buy wané également nit bu yoré arme di dor sans pour autant ñeneen ñi di gis ni mu ngi dóor ndax daf koy dor rek dugalaat ko ci tegaat ko ci ci pooj donc loolu lépp day day firndeel rek ni am nañuy manifester nam mais am na ñoo xamante li leen tax di manifester loolu nak day interpeller ñi nga xamanteni ñom manifester rek mo leen tax ñu xam ni ci bir firndel sa euh, opinion sa bakkan xaj ci ndax ñi nga xamanteni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg ñoom bu seen pexe sottee mooy dinañ def ay dégâts maanaam dinañ tiire ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoo ko def FDS yi encore une fois muy les forces de défense et de sécurité population bi duñ seen ay ennemi nous sommes là pour la population li ñu nga xamante ni mooy suñu liggéey nekk suñu mission de tous les jours moy fexé narkan la euh, population bi di nekkee ci diam. naka lañuy mëna mën a vaquer à leur occupation naka lañuy fexé ba fank lépp lo xamante ni jug na ngir gàllankoor seen ay activité lolu moy suñu mission lolu taxna exemple bi mu ci joxe léegi doon ci sëkk misal moy ki nga xamante démon na ba nek en situation de légitime défense ñepp gis nañ ko ñukoy dur ay ay briques mais mu garder sang froid parce que xamna ni ñi mu jakar lool Euh, du ñu ay ennemis mais ñooñu ay frères am lañ ay sœurs am lañu ñoom ñoo bokk lépp.